tout droit Mamadi Ndiaye Sadj Njongolor ngeen lok sa Mamadi Ndiaye wal len gannaaw ñu déglu combat bi nan la ak nakala ak arbitre ate na ngi waxtaan ak Injon Ino

Reinyong banyak ni keindangan Umur Tepatkan umbu Minyum ni kena Adung usaha-usaha Minyum ni kena Minyum ni kena Laya hujan ni kena Laya hujan ni kena Tidak istimewa nak naga, ya? Nalai yang siapa? Boleh, boleh aca boy mago Ndiol Sana ñu déglu ba xam combat bi nan la laay la la sa jël na tànk Mamadi Ndiaye Sadio Ndiogou lool Mamadi ci délégation lakas way kere Cheikh Tyson o américain ref ken taxu ko ɗe ñamne o fay kere fa Ousmane o ten a yoona fa lay e fa amol salam o faaxa muhammed feke i jomninanga nuun ga'aano fi'anan mene to a komaak i mbaage lim i limanga xana juum aca Mamady Ndiaye am na avertissement i ndetulay matidu Babacar kasi oxa ngoog ne Fatou Adama Jali ah, a nana ƴufna nana fi'anan ku refna tuwin lakas rek waagimo lim a ndef rek ndef ñaare rek ndef ñeteen lay matidu o jasor fa Nabou aca loolu benen combat la digante jol Sana ak Boy maron acha Boy Maroon moo féete droite ngembo ngembulu ñuul bi Ndiol Sana borom mer ngembu bi mo fete gauche e min an gar aussi ɗo par fakat nako waye saj bagna kamor jatnor fo ko xay mo banku banku mo tabe juromi de kamon sa kanun fak ko mu tak na meke ane fa len den na ko fak laga Oli Fabia Pedro Cordoba sartagande sewo emine wetati teranga ba aja combat bi metti na sa njogolo mamadi dia ko tatanga Patre mako ya yete jona ngudan tidak kini. Iya, nak nak kamu ni. Jona ya Awal Jallo ñun ay ndaw la ñu yaay bébé as bo ma jox ak seen ndax pass lo lega de est-ce que nuna fop nangat endi ni eme ni wiin we fop a ngata wana fop bin dimin ɗiki fiɗi yasa bin kin banna ɗik fiɗi aca arbitre sifle waat na diggante sa njongoloo Mame am na lu fa xew de lan la acca ñu dégluwaat ba xam combat bi la ak naka la aca abi sif la waat diggante sa njongolo délégation ne ko mos waaye nag i njoko paax a paax luun a njang njoko Moussa te a Ceerno Moussa parce que Moussa in a paax ndax na a waag ke te rega roga fi ne moƴna roga xema lim to minen anone gandamuɗe bakko ɓe ngi boge ah, diggante Sa Ndiogolo ak Mamady Ndiaye seen combat bi metti na directement waaye nag ASC Shamsu Boy yéen a ngoy tax numéro 14 Magana Santa Fe Bassa Bassa Andiwara 150 000 poussière naak 75 000 raw gadu naak tadik poids léger naak petit naax jaxabal wala mboot loolu lan lay doon la ilaha illallah aca sa njongolo tan na